bismillaahi rahmaani rahiim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu yéen nga xam ne yéen ànd ak ñun TV tabaarakallaahu ñu ñëw wax leen rek wala yokkar leen yéen nga xam ne da ngeen a bëgg ci jataay bi maanaam da ngeen bëgg a abonné da ngeen di bës ci bi maanaam fi ngeen di seen loxo su ngeen bësee cloche bi noppi daal di def j'aime te bu leen fàtte nag commentaire yi ndax bu ko defee nu ànd ak yéen ci bu ko defee abonnement yi gën bari àdduna si yëpp ànd ci ak mooy doxal ak liggéey bi jërë ngeen jëf bi ànd bi ngeen ànd ak leen te sàmm salaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim rabbi srah li sadri wa li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ali TV dellu na beneen yoon ci kàttanu sunu borom tabaaraka taala ci seen jotaay yi di jotaay siira ngeen koy am ay bés yu jot waxtu wi ci kàttanu sunu borom subhaanahu wa taala tey war a nekk suñu fukkeelu jotaay ak ñett waaye duñ dañ leen wax ne dee leen abonné ci seen bi di bës yi ngeen di bës kolos bi. waaye di bës notification bi ndax ngeen mën di am vidéo yi nga xam ne bu leen rawet ngeen am ko saa bu ne alu ngeen ngeen mën noo jot jërë ngeen jëf mbokk yi ñu bëgg a jàng sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwagul àdduna bi mu ñëwagul àdduna nu àdduna meloon jar naa jàng ci njàngat yu bare bare bare bari nan la àdduna meloon xab qabla ma ji sallallahu alayhi wa sallam ni àdduna meloon ba ko Muhammadul Ghazali di jàngale rahimahullah daf ko tàmbali ci ne ne yëf la risaala ak imaam risaala ak imaam moom nun la ko tuddee risaala gi mooy mission bi imaam bi mooy yónnent bi ak risaala la yor bu war a àgg ci ñëpp waaye imaam la war a jiite ñëpp sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko Muhammadul Ghazali jàngale ndax xam nga moom moog albuuti ni ñu def ci siira amal na penc mi njëriñ lool tabaarakallah ñoom macha allah ndax euh, daf ci am ñooñ dañuy yëg di wax am ci ñooñ dañuy yër di wax ñoom nag ñi mel ni ñoom ñëpp dañuy yëg di wax waaw waaye yër du ca doon bi bu ñëwee di jàng risaala danañ ci ñëw waaye di jàng imaam dinañ ci ñëw da ko tàmbali woon ci démb bi yonent bi ñu nekkagut yan civilisation ñoo fi nekkoon civilisation ba lum seexlu woon ak lum seexlu wutoon civilisation boo xam ne bii seexlu wutoon jaamu ay matt civilisation boo xam ne bii seexlu wutoon ay ay bàyyi ma civilisation boo xam ne bii bu yàgg ba ba cheikh wutoon nit ku yett dara ba noppi teg ko këram di ko jaamu civilisation boobu cheikh lu wutoon loolu civilisation boo xam ne defoon na àdduna si mu métti lool ci ñi doon dund metti ci jigéen ñi métti ci ndaw ñi metti ci góor ñi metti ci mag ñi civilisation boo xam ne bi daal seexluñu woon dara léeg-léeg nga jàng siira ba mu yàgg na ne waaw nun ndax danoo del si fi ñu déparé woon kon li alxuraan naan wa man nu'ammirhu nakkisu fil xalq ndax ñun dañoo dellu si fi ñu déparé woon loolu de waa taarix di di di jàngale dañ naan taarix dañ naan taarix day del si mbaa du kon loolu laa del si ala kulli xaal bi fi yonent bi ñëwagul civilisation yi fi nekkoon yi may wax ni seexlu wuñ ko woon seexlu wuñ sàngara cheikh lu yeneen yi nga xam ne naa na ci penc mi di nekk ay njëmbuteef civilisation yooyu sox cheikh lu ñu ko woon waaw kooku sa morom doole def ko ko incha allah mi ngi ci bindi ci kanam waaye daal li ñuy jàng nii mooy booba ngën ji mbindeef Muhammad ibnu Abdullah ñëwagul adduna waaw ñëwagul adduna ñëwagul adduna ñuy jàng adduna bi fi nekkut moo tax boo jàngee àdduna ba mu ñëw nekk fi danga xam ne kenn du moom sallallahu alayhi wa sallam junj naa ko ci bind bii ni weesu soo ñëwoon Sénégal nga ne li fi ñi am nan ko génne te def te def euh, te def euh, recensement boo moytu li fiy des lii bërëb ceeb suur na leen waaw bu mag ñi séddoo woon li fi nekk kenn ku ci nekk woote sa dëkk ñëpp wu si la ñi fi des te nekkuñu foofu dama ne liibarub ceeb suur na leen yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ñëwagul adduna ni adduna meloon bi mu ba ni fi jógee lim fi def lim fi def ku ko dindi woon da fi dindi dana am pax mu rëy mu fi jógee al muslimuuna min mashariqi l ardi wa magharibiha min shimaliha wa janubiha ànd ak moom taxawal benn civilisation mi ngi ci kanam incha allah àdduna kera bi fi aadama wàccee àdduna kera bi fi aadama di wàcc moo ki doomam li ñu fi fekk du mission yonent bi déedéet aadama wàcc am fi diir ami doom aadama moomu la sunu borom tawa taala désigné woon pour mu nekk xalifa fil ard inni ja'un xalifa fil ard ca diggante ak malaaka yi malaaka yi ne ko waaw da nga fay yóbbu ku yàq ka tuur deret mu ne ini alam ma la adama sunu borom jàngal ko wa allama adama al asma kullaha bi mu ko jàngalee ba noppi nag ne ko ah, jàng nag du nooy def kon da ngay dem benn université bu ñu wax aljanna nga def stage ba mën a dem adduna waaw danay wax ne adduna jàng xëy jàng xëy di jàngale loo jàngale loo xam waaw laaj ko syndicaliste yi da jàng ba noppi nga dem ñu jàngal la li nga jàng nun koy jàngalee waaw na nga dem jàng li nga jàng nun koy jàngalee su ko defee boo jàngalee mën nañ laa dégg xam-xam yépp it nun la nag ñuy wax ci rajo yeeg ñu wax ci télé yeeg ñu nekk ci barab yeeg ku ci nekk da ngay ñëw def stage ñu wax la li nga jàng noon koy defee aadama dugg ci aljana ji def stage stage ba jeex mu wàcc ci kaw suuf bi mu wàccee ci kaw suuf nag moo fi nekk ak i doomam waaye gis ngeen diggante ñaari doomam ya ba sëy tàmbalee am te yonent bi ñëwagu fii kenn ka def ne morom ji sama seex laay takk nga takk sab seex seen papa ne leen daa xaraam kenn ku ne sa seexu morom ngay takk dañ koy jàllawle kenn ka ne man duma ma ci loolu léegi mu jaral ko mu rey mu rey moroom ja ndax takk kële dem ak moom dem moom takk na ko dem ak moom loolu ci civilisation yi bi nga xamee ne aada maa ngi fi te yonent bi ñëwagut daanaka noonu la meloon ay siècle yu baree bari romb fi nag waaw jamono yu bari romb fi isa bnu maryama dem na musa bnu imran dem na shuaybu dem na lootun dem na saalix dem na huud dem na yonent yooyu yépp dem nañu ba ki fi mujjoon muy isa bnu maryama def déclaration bu rëy ba moom it dem na ñu dox juróomi téeméeri at joo xam ne àdduna amul yonent hmm? waaw waaw loolu nag tax boo dem ba nga demaan Égypte Égypte gii tey danga fay fekk civilisation boo xam ne bokkut ak bi lislaam bëggoon jàmbaar lañ ci woon nag ndax daa jégg ngeen ci lam yuxlaq mithluha fil bilaad wa samud lasina jaabu saxra bilwaat waaye wa firawna dil awtaad alladina taxaw fil bilaad civilisation yooyu sunu borom nee na ku ci nekk ak nañ doon dàkkantele waaw zaad wala boog aad dégg ngeen iram zaatil imaad ñenn ña jaabu saxara bilwaad ñenn ña zil awtaad taxaw fil bilaad ñoom ñëpp nag maanaam bew nañu woon bew goo xam ne gi kenn daawul jot àq yi nga xam ne moom nga moom nga seeyoo lu tax kilifa yi ñoo la koy xañ Égypte amoon civilisation bu kowe gis ngeen pyramide yi yéen ñu ko jàng dégg ngeen bind ci Seex Anta Jóob bind ak moroom ju gës ci loolu ba gis yiñ ca gis mu do mu doon kéemtaanu sunu borom pyramide ak ni ko gaa ñi defee te gisatuma àdduna ñu mën a defar pyramide ak niñ ko defare woon waaw borom xam-xam sax nee nañu buñ ko ma masaan tabax ba noppi am na fa boo ko jàppee yaa kuy teppi saakob ceeb yéen a yem saakob ceeb bu ñu ko ràbbee ba noppi bu ko ndaw ko ndaay jàppee ñoom xam nañ bunt bi ñu def mi ba dañ rek bu ñoddee rek lépp dañ waaye ñu ko xamul paaka la ñuy wut bi di dafa amoon yoo xam ne noonu la boo dindee birig bi rek mën ngaa daane lépp waaye doo xam nag ban birig moo moo tëj affaire bi moo ko fermé ba ba ba ba nga di ko tijj loolu nag umpoon na waa àdduna Égypte civilisation ba sax tax na nit ñi jàpp ne am na lu ci alxuraan tibb mukk mukk alxuraan bu dee tibb wala muy jël wala yonent bi tibb mbaa muy jël dafay exposer civilisation bi la ca baax moom alxuraan ko moom waaw alxikmatu dallatul mumin yaltaqituha xaytu wajadaha yonent bi nee na lu baax jullite ko moom fu ko fekk rek na forte xam ne yëfama waaw civilisation Égypte ca la firawn nag génn moo ko mooñ ñoom Ramsis yaag ñoom ñëpp ca la ñu bokk waaw la ñu xulax mi fil bilaa di jiitu leen waaw boobu taxoon na firaw na waa penc ma gëm ko jaar nañ ca génn ci ay xissa waa penc ma ragal ko waa penc ma nangul ko kere bi mu yëgee ne nguuram gi day daanu la tëral benn planning familial boo xam ne moo tax ne planning familial jamono tey nag ndax jamono tey planning familial day day maasale moom nag bosam ay góor la doon rey waaw yusabbihuna abnaakum wa yastahyi nisaakum waaw noonu la doon def en tout cas civilisation la boo xam ne jàng leen ko ñu jàng ko waaye itam li ngeen ci xam mu ëpp li ma ci xam waaye maa ngi jàng rek dém bi àdduna bi muhammad ibnu abdullah ñëwagut sallallahu alayhi wa sallam su ko defee man ak yéen buñ ca àggee nu gis ni mu changé jamono ni mu ko soppee nun tam nu soppi sunu doxalin ci moom bëgg ko baax na ndax mooy jur lépp waaye nag fexeel ba di ko dund ci sa damir fexeel ba di ko yëg ànd ak moom foo jëm rek nga xam ne yaa ngi moom benn civilisation goog ci àdduna lu jiitu yonent bi di ñëw bi mooy civilisation grecque yi civilisation grecque yi xam nga bu Égypte bi jege na arab yi waaye bu grec yi moom sori na arab yi waaye bu grec yi grec yi dañoo fexe ba lënkale seen civilisation bi ak làkku tubaab walla làkku latin comme mooy ndey làkku tubaab grec yi fexe ba ñoom seen civilisation boobu bu nuy jàngal nit dañ ko koy gëmloo léeg-léeg nga dox ci pénc mi gis koo xam ne kii civilisation grecque la gën a gëm ci alxuraanul karim su fekkee da ko jàppee civilisation Hmm? waaw waaw grec yi seen civilisation ña ko jàng xam nañu fi mu tolloon ci àdduna xalaat bu ne am nañ ko xalaat bu ne jéem nañ ko am ci àdduna waaye loolu ma waxaat ko euh, borom barrière ba ca Madina ñëwagut li ma jàng nii it mooy li muy tekki mooy ñëwagul ci àdduna noo ngi jàng ni àdduna meloon kon civilisation grec yi euh, ak yu Égypte jàng nañ ko jàng leen ko ngeen gëstu ko xool Euh, grec yi nan la ñu meloon tabarakallahu naka noonu civilisation Inde Inde yi am na civilisation bu bu yàgg am nañ civilisation bu yàgg ba léegi itam ña nga am waaye ñoom fi ne bi ñëwee am nañ ci dugg ca ñoom am na ñoo xam ne ba léegi ña nga des ca seen civilisation démb ga waa ña nga ca des ca bu démb ba fi ne boo seetloo ci feebar bi nga xam ne moo nekk ci pénc mi indu xaat ñoom commencé nañu wut nañ seen ñakki bopp ba xam naa jàpp jombul tàmbali nañoo ñàkk wala léegi te ñu tàmbali leen ñàkk waaye civilisation booba it mbokk yi ah ña ca nekkoon am na ñu baree bari yoo xam ne seexul wuñu ko woon sallallahu alayhi wa sallam àdduna ba demee waaw civilisation Siin ñoom gis nga ko ci ñi ñi ñu gën a yeewu ci àdduna si ci lañ bokk ñoom dafa am nu nu gëmee àdduna bi tubaab bi indee lu ñu tuddee planning familial pour néewal njur mi chinois yi dañ ne ñoom duñ ko def nan leen bàyyi rek ñoom ñu jur bu ci loxol kenn dugg moo taxit bi ñu baree ba bari ah léegi xalaat day génn Chine li muy génn ci ay xalaat par bés nouvelle technologie niñ fiñ ci tollu transport fiñ ci toll léeg-léeg ñu wan la yoon wu siin waa defar ca siin yow dugg ci oto jaar fa sax ñi moo ko man di ñi ko léeg-léeg ñu wan la euh, montagne muñ bunn wate di dugg ca biir boo moytul bu ca murux ji duggoon day gëmu ba génn bu dee wér gu yaram siin tolloon na foo xam ne buy faj nit mën nañ laa ñàkk nelaw loo am na pusi bu ñu lay jam ñaar ak ñetti rek sa yaram bi yëpp dootul yëg dara luy métti ñu ñu ñu def la ko donc damaa bëgg wax ne siin civilisation yàgg na fa waaw boo demee ci Perse it fee ca fi Iran nekk tey su dul ñoom nga xam ne ñoom itam yàgg nañ ci civilisation waaye ñoom bi lislaam ñëwee ah nangu nañ ko ubbil nañ ko seen bunt boole lañ amoon démb ak liñ am tey muy wenn xeer bu jam ñaari picc ñoom xaw nañoo wuuteeg euh, grec yi xaw nañoo wuuteeg indo yi xaw nañoo wuuteeg chinois yi waaw ñoom loolu moo leen may sens moo tax ñoom fi mu nekk nii ci àdduna coow laa ngi ne kurru ci seen ngànnaay loolu lu tax ñu koy am waaw te kat ñi leen naan lu tax ngeen koy am am na ci pénc mi ñu ko am waaye ñoom réewum jullit am ko moo leen tiitloo ndax dañoo bëgg di leen tooñ fu ñu mën di toll te buñ yor ngànnaay la daloon Iraq ca ba fa Saddam di nekk xam ngeen ko dangaa yor ngànnaay yoroo yoruma ko dañ koy seet mu ne ñëw leen ñu seet a seet ba mu wóor na leen ne léegi ñeme nañ ñëw song ko ba rendi ko benn bés sant Saddam Hussein foofu la jaar waaw waaye itam jàmbaar ji nekkoon ci lii bi fa la jaar ñaari dëkk yooyu fi mu nekk bàyyi woon fa seen ñaar ñooñu moo gënal réew ya gënal réewi àdduna si ndax war gaal dem gi jamono joojo la gënoon a jafe ci jamono léegi bi Saddam nekkatul Kadhafi nekkatul ala kulli xaal Perse yi seen civilisation muy Faris bu fekkee mooy Perse seen civilisation noonu la tolloon ba demee ci Romain yi rome yi am na ñoo xam ne mooy Italie tey am na ñu ko wax waaye boo demee ci ñoom itam amoon nañu civilisation mbokk yi ñoo ñëpp Égypte euh, grec Inde Siin Faris ak Rome ñu ñëpp ku ci nekk amoon nga démb defe naa dégg ngeen alxuraan di nettali xeex ba xewoon diggante Faris ak Rome غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله waaw nun la nun la doxee ndeysaan am solo lool ba pénc ma doon ko dund ah léegi nag bi àdduna doxee noonu kenn ku nekk ber sa toolu bopp kenn ku nekk ber sa civilisation bokk doomu aadama moom nga xam ne moom la yàlla ne woon yaay nekk xalifa fi ardi mu jàgg moom mu nekk njaati moom mu nekk surgëb civilisation yi doomu aadama mi yàlla ne inni jaailun fil ardi xalifa xalifa boobu ñëw war a nekk kilifa àdduna moom mu sàggan ba àdduna yilif ko ndeysaan civilisation égypte yi di ko ommat moom àdduna muy këyën këyi ngi topp leen yu grec yi di ko ommat ba mu boo ba mu mën cee weddee alquran jàpp ne civilisation bu grec yi moo gën a wér bu alquran bay tàmbali sax di weddi ay aaya ci biir yoo xam ne dëppwut ak euh, civilisation bële inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah kon doomu aadama mu nga xam ne moo war a nekk xalifa fil ardi moo mujj far di di al toppee topp ci yeneen civilisation yi mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak yéen ak seen njaboot fu ngeen man di nekk ci réew mi la moo xam wala bitim réew la moo xam tey topp suñu jotaay yi di siira topp gi nag mbokk yi mën naa nekk ci may tam li ma waxoon rek mooy di bës flèche de notification bi di bës ni nga xam ne mooy Euh, tax ngeen ànd ak ñun te itam euh, vidéo bu génn rek ngeen mën caa jot loolu am na solo lool commentaire it bëgg nañ ko macha allah rawatina yi wax waa leen góor jërë ngeen jëf ci ànd beeg Ali Imran TV ci biir réew mi ak ci bitim réew jaajëfal suñu caméraman euh, Pape Doudou mi nga xam ne moo leen di jox image yi di leen jox son bi ngeen koy am fu ngeen mën di toll yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara in uridu illa al wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak ñun ci Ali Imran TV tabarakallahu ñu ñëw wax leen rek wala yokkar leen yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a bokk ci jataay bi maanaam da ngeen bëgg a abonné da ngeen di bës ci cloche bi maanaam fi ngeen di bës seen loxo su ngeen bësee bi noppi daay def j'aime te bu leen fàtte nag na ci solo bu ko defee nu ànd ngeen ci liggéey bi bu ko defee abonnement yi gën a bari àdduna si yëpp ànd ceeg ñun loolu mooy doxal ak liggéey bi jërë ngeen jëf bi ànd bi ngeen ànd ak ñun yàlla yàlla sàmm leen ca sàmm salaamaaleykum wa rahmatulah